dem dikk du ko yàqaat macha allah gis ngeen foofu la 7TV moom nii la rek ñun ñëpp a bokk ndey ak baay kenn ku ci nekk rek da ngay defar beneen invité bi nag ñëw na la sànq wax naa leen ko kenn dootu ko présenté ti tubaarkàlla macha allah muy Tafa sama càmmiñ di sama xarit la yàlla boole ñu tubaarkàlla Tafa macha allah. sama invité bu ñaawul bi exil <laughs> Moustapha Yande Mbaro <laughs> bëre laa laalu bëre sax bëre laaxu laalu eh, baaxu góor baaxu góor la macha allah wasalaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di nuyu di la nuyu Ngoy ndeysaan waa di nuyu askan wi yëpp nag di ñaan réew mi jàmm ak salaam jërëjëf waa di ko ñaanal ñëpp nag di ñaan nit tam Euh, tabaski gii ñu jóge mm-hmm. yàlla nañu ko fekkee ay tabaski. amiin yu bare bare bare amiin yaakaar amiin yaakaar Moustapha Yande Mbaro tubaarkàlla tey di bisu tabaski ñu war a baaloonte yàlla boole ñu jéggal tubaarkàlla naka xar mi mbaam buum gi dëgërul woon. xam nga xar mi nag dama koy bàyyeeg euh, jaween yeeg géej loolu génnewule ci de dama cee laal rek. loolu génnewule ci de dama cee laal tuuti rek. <laughs> tuuti rek. waaw da ngaa saaf wala da waaw wala dañ laa marinel. waa xam nga kii noo kii. waaw xam nga saaf nañ nag. Ah. tey xam nga Assou Ndoye nag tey moo. macha allah. def ba mu baax rek. Ah? waaw def ba mu baax rek. waaw toj na foofa. waaw toj foofu Serigne Baba Gambe tubaarkàlla macha allah. mu marine defar ba mu baax rek. Mm-hmm. macha allah. Tafa ñu ngi lay nuyu. waaw man lay fay bu baax a baax. di la dalal fii ci télévision 7TV laa télé qui nous ressemble et nous rassemble télé bi ñuy ndur ba noppi te duñu dajale kon defe naa juumuñu tubaarkàlla. juumu leen fii mooy télé jinne yi. ndeysaan. ndax defe naa ne ngoy man. Mhm. Euh, cinq ans ngi ni wala six ans kenn gisuma ci ay plateau. ay plateau yu bari dañ ma ci invité yàlla dogal na du ma du sax mën a teew. Mhm. xëy na yàlla moo koy dogal parce que dañ may invité dañuy sonn nag. ndeysaan parce que xam na rek man dama xaw a raar ci télé nag. ndeysaan ndeysaan waa dama euh, dama xaw a raar. Mm-hmm. te xëy na suñu borom noonu la koy bëggee. dëgg la waaw euh, nit di ma invité. Mm-hmm. du euh, jàppante. Mm-hmm. du jàppandi. waaye damay xam ni noonu lay demee daal. parce que daf may invité parfois. Mhm. beneen laneen ñëw lu gaaw. loo xam ni mënuma ko ñàkk bañ a def. Mhm. xam naa sax ñu bari nañ ma mere. Mhm. moo tax ma ni fi mooy télé jënne yi. yow mi ma loxoti bay ndëbu fi. waaw maa la wax xam naa leneen ngoy fan la jaar. ñoo bokk dëkk suñu Cambérène. la jaar. ba indi xuus dañuy indi laalu góor la bëre baaxu góor la. bëre baaxu góor la xam nga ñëw foofu macha allah waaw waaw. après ñu waxtaan. tubaarkàlla benn bu baaxee ndeysaan kullu kuy bëre way wi yaa ko moome waaw sargal Yassin Gueye Massar Sene Gueye Massar Sarata Sarata si nangido fan ñu nga naan lambu soo sàll mboro mboro Gueye Massar de naar yee ma mari penda naar yow ni Sarata Sarata si nangido fan ñu nga naan soo sàll maam la woon ma ngoy yàlla na ngay maabo yow Yàlla xam ni fii ñoo ko moom lamb ñaar

te macha allah dama la ko daan wax ni la man tafaa sa woy bi daf ma neex parce que boo dee woy xel yépp day dem ci Mor Dior Seck mi bokk ak coon ndey ak baay waaye ana Mor Dior waay tubaarkàlla ndaanaan loolu. Moustapha xam nga ngoy Mor Dior moom kenn du moom. wallaay dëgg la. ndaxte xaw ma ko sax. ndax moom def naa ba mu fi jógee boobu xale laa mm-hmm. te bi may woy itam booba sax xawma ko par la suite laay woy di woy ñu am da nga nuroog Mor Dior da nga nuroog Mor Dior mm-hmm. maa ngi woy ci yenn mm-hmm. ay simb affaire yooyu xam nga ma après nag ma ne may kan mooy Mor Dior après ci laa amee sax ay kastam mais dama woy rek mu tombé nag ndeysaan après nag ma wër ay kastam ni ah kii mooy Mor Dior léegi nag ma xam ni kon suñu borom mooy mooy mooy defee noonu. mooy defee noonu dëgg la. waaw suñu borom mi ñu mi ñu bind xam na ni wallaay mm-hmm. azim xaw ma. dëgg la dëgg rawal. parce que baat yaa tombé. lu tax Tapha mën a woy ba pare bëgg làqatu. waaw mais dara xam nga musique. Mm-hmm. fii mu toll nii dafa jaxasoo te ni ko mag ñi daan pratiquer ak ñun bokkuñu. Mm-hmm. parce que dañu koo bëgg a def concurrent. dëgg la te musique bi du concurrent. dëgg la musique euh, sottante ay kii la xalaat la. Mm. ak bokk portage dëgg la. waaw te man yàlla dogal ni bokk ma ci waykat yi nga xam dañoo gëm ay buzz. Mm. waa man musique laa gëm woy laa gëm. Mm. dama bëgg woy mais du ma waykat bu gëm affaire buzz ak yooyu quoi. parce que premier clip bi ma woyan ci Boubacar Thiam sama benn grand c'était 2007. mu invité ma ci ma woy ci. ndeysaan. bi may woo ci clip pour ñu def clip dama doon laa xam ne ko non defuma clip. ndeysaan maama non booy dañu war def clip. mujj gi sama kër la ñëw. effectivement. ñu xëy bi nu war a xëy def. clip bi moo mujj jënd ay yére yëpp sax jox ma. ndeysaan. ñu def ko bi ki morceau bi génnee topp ma. Hmm. ku ma tasal naan ma ràññee mujj may daw waaye bàyyi leen ma waaye. ndeysaan ndeysaan ban way la woon loolu. ràññee xame naa bu caam. ñi ma bëgg ak ñi ma bañ ak ñi ma hóolu. loolu dalu laay dogo dogo fali moo joor kumba samba yaay jaloor woon ma buba caame doomu yaay usmaan caam yaay mbuba mooy yaay yaay mbuba jaaña gore macha moom mu doon toppandoo ku ñu naan Salam Diallo ba tuddee woon boppam defe naa salaam deux. salaam deux mooy sama mag nag njëkk ma woo ci affaire yi. Mhm. bëggoon ma nag. dëgg la. waaye tamit di nuyuwaale sama benn yaay. Mhm. sama xarit di sama lépp yaay Marie. Mhm. moom kooku moom daf ma bëgg. ndeysaan. 2020 bi mu ngi waroon yóbbu Espagne. dëgg la waaye corona ñëw. Mariama Mbaye. ndax kooku moom. kenn ku la bëgg jar na daw ba dee. waay dëgg la ko koy may. Mhm. parce que xam nga musique. Mhm. way bu yeddul yeete rek ay naxaate. dëgg la te fii musique bi toll nii. Mhm. bon dootoo comprendre. dëgg la waay dootoo comprendre. parce que maa ngi ciy way sax benn morceau bu boo xam ne bu ma gën a naan nii. soo dee. saa yo door ci duniya. yaa ngi naan. duniya duniya kañ laa ci am teraanga. nga wuti teraanga wëndeelu. wëndeelu mbay mbay mbay mbay mbay mbay mbay mbay mbay mbay mbay mbay man dugg naa fef ñoo mbay mbay mbay mbay mbay mbay ànd ak papa Samoré nga siiw ci duniyaa di wëndeelu wëndeelu mbay mbay mbay mbay siiw du jàmmi borom ba su ma siwee jàmm lay ñaan waaye duniyaa ba bu ma siwee mbaa doomu wutal ay noon jamono bu ma siiwee mbaa doo leen ma waxal ñaaw yéen gaañi yéen su ma siiwee mbaa doon war nan ni laa meloon ndax presse bi bu ma siiwee mbaa dun ma bindal ñaaw dunyaa nit ñi jamono àdduna jamono bee ay waaye dunyaa bu ma siiwee mbaa doo ma jaxaseeg Musaa day maan jamono bu ma siiwee mbaa dooma tàggaleeg Moussa daymaan siiw du jàmmi boroom ngoy mbay siiw du jàmmi boroom ngoy mbay mi joma ñaaw ndaxte fi ngay siwe fi ngay xewe fi ñu lay bëggee fi la la nit ñi tàmbalee di noonooy nga naan xàmmeeguma ñi ma bëgg ñi ma bañ ñi may war di toogee jamono baye boo siwee di nga dégg nanga nongu bul di tontu lépp luñ la waxal ci lu ñaaw xàmmeel mbokk dëkkandoo yi am di jàmm yi bañ a woon say andi daaw gannaaw njaga nee na way su yeddul yeete su yeddul yeete ay naxaate la askan wii li soxla mooy woyal ci dundugu seer gi mbaa ni jànkontil jafe-jafe yi looloo soxal askan wee looloo jooyloo réewum Sénégal ndeysaan nga ànd ci woon ak Wally Seck ci mariage doomu Samy Thioune muy Ndeye Ndiaye sama doom ci wëndeelu boobu ngeen diggit ci lu gàtt rek lu tax kaset bi après génnul parce que Waly waxoon na ko foofu. waaw ndax Waly. Hmm. sax maa ngi koy nuyu bu baax a baax. Hmm. moom daf maa bëgg. dëgg la ndax boo toogee ci am réew. Hmm. ñu invité la télé. nga wax kuy sa kat nga tudd nit tafaasak. ndeysaan ba pare booleeg di woy woy ba. kon kooku mënatoo ko fay. dëgg la ba pare nag muy nit ku baax. ndeysaan Euh, may def sama anniversaire mu yëkkati xaalis bu bari jox ma ko. Mhm. daaw mu yëkkati xar mu mag jox ma ko. ndeysaan. kon Waly yal na mhm. sa jàmm yàgg yal woowaat ko tubaarkàlla ni ko morso bi bu mu ko fàtte. waaw Waly Seck mu tegoon baaraam moom moom day sama frère. ba pare ma bëggee noonu laa ko dëgg la waaw da koo wax publiquement ne la Tafa Seck wëndeelu bi maa ngi toog dinañ ko way maa yow moo tax ma bëgg nga la woo Waly mu ñëw ngeen def ko. Wally Seck ndax la 7TV ñëpp a koy seetaan. waaw Wally moom dama koy woo rek. ni ko ah. moom day sama frère di sama lépp. Mhm. di sama euh, koo xam dama ko bëgg sama biir xol. dama koy wooyee rek. ci euh, laaba ko ci tuuti rek ci Baye Mor Dia. ndeysaan. léeg-léeg di Sénégal nga tàggoo ko jugaale. macha allah Ndiaye kay ne Ndiaye. day doo. ndeysaan. Afrique yi nii Guinée ku leen bëri daat na jëm kanam. da da da di dan di dan dan da dan di dan di dan di dan di dan dan waali njaay gaynde njaay gaynde yaay gaynde njaay mboloo gaynde njaay yaay gaynde njaay ah waali jiino maaro maaro may sa dawul baar maar lati di ñëw dañ leen di soxla yéen ñaar Maguette Mbaye tubaarkàlla na fi toj Mariama seen may sa bigé mooy maamam may sa bigé maar lati jub jigéen Mbaye kurat faale jigéen la ñuy woowee maamam mm. yow maare maamam Ndiagan Ndiaye maro maar may si bi mbaar ajub naar mi de si njar ka demba ma ca lambaa njinu njin fol ba dañeen laajte jur dégén mbaay jur démba dégén mbaay kurat faaleg dégén eh. doomu yaayi dogoo bàyyi kura caam man de dama lay nii la mën mel ndax ki mu delloo sërifa abduraxmaan faal ci laala bay jili faal la doyloo aha may way way way way way ma way ko way ko way ki muy bëgga ji ndaat naan la doomi ndaat naan la ci Sénégal wali sa yaay du dàq gaal ba ca ngolal tali baa ngeen am nga teranga am war maak sutura yow jangaani woo mbaax sa kër yaay nga xamee mbaax wani sa yaay du dàq gan bëccëg nal tali baax yow am nga jom am nga teranga waaw am war maak sutura yow jangaani woo mbaax sa kër yaay nga xamee mbaax jàngaanoo ko baabu mokkale ber dara mageto mbay eey jallo a jalu jalu jalu jalu jalu jaale séeri baba mbay lay jiin borom almaañ màgget lu ko may mu may ko papa ma jaagab may sa joor daw ngu ne xaytala may maamam coro binta faali mooy maamam matar binta faali binta faali ma dul jey la ñu woo wépp maamam bayu alsaan laay bëgg a jéen ma mariama baay sa tub jinne baa ngi di jinne du la jomaal mariama sa yaay la ni joo noppeegunu mbayo mbayo mbayo mbayo mbaay mbayo mbayo doomu yaayu moo garmi lay jiin ngoy mbay galle maa mbay maa mbay jooje firi maamam isaa jooje firi la ñu woy maamam sama mag ji xam nga ñaawloo ki daaloo ñoo bokk benn bàyyi kii maag moomee. ndeysaan maam bay jooje fëri la ñuy woowee maamam. Mm. Issa jooje fëri la ñuy woowee maamam. doomi buur géwël laa ngoy man de nuyu naa la. fay naa la mbaay. waaw ngoy foofu laa jaare nag xam naa damay kontaan macha allah. Euh, parce que lii tubaarikàlla mooy wane ni wala 7TV ñi fi nekk ay liggéeykat lañ tubaarikàlla macha allah xam nga ni bii tubaarkàlla amul fenn te nag man de li ma ciy jàngate mooy lii moom fexe leen ba def ko. day am léegi waaw Maguette Mbaye. loolu loolu loolu may may def kii bi. waaw parce que macha allah macha allah parce que ni bari sax dañuy defe nii yàlla na mbiroog laa way. parce que def naa album. Hmm. sept morceaux. am na baana baana warkat yi. yaay musique bi. jàmmi làmb. xa hmm. noo koy gawlo hmm, mais Maguette dama koy yàgg sentir na mm. macha allah mu mu mën a woy lool mm-hmm, mm-hmm. yal na yàlla wéral sa baat ndeysaan amin incha allah te li nga def ngoy yombul ko wallaay yombul kay dëgg yàlla yombul yombul dajale ay mm. xale yi mënatuñ ko déedéet waaw mënatuñ ko de acapella déedéet way ci ngéwél da nga koy tarbiyu mm-hmm. am foo jaar te ku mel ni Maguette mbay yàgg naa ko xam mm. mu jaar yu bare bare dëgg la dëgg la te way noonu lañ koy kiyee ñoom Youssou Ndour jaar nañ ci ay kasak dëgg la jaar ci ay simb jaar ci mm. mbapat. Mm. waaye dañ koy jaaree fa ba doo ko dugg ci musique. dëgg la waay waa booy dafa am ay normes. Mm. ñu ci bari xamuñu woy wu yàqu ak woy wu ñuy defar. dëgg la waay. woy dañ koy tibbe ci suuf jële ko ci kaw dafa mbaar mbëpp njolli mbëfër. ay mbay déggal lii. waaw ñu jàng ko nag. Pape loo wax ci lii. Ah, daan déggal sama jinne caméraman bi. daan ñëw Pape. <laughs> waa régie yàgg awu nongo nag. dëgg la man aw naa lu mag juróomi at. te du ma solo. du ma siif damay yeew rek. dëgg la comme ni tëkk sabar yi njëkk meloon dañ daan mm. gàddu sabar tëgg di yeew wallaay dëgg la mais ngooy lii xajul ci. déedéet xajul ci guddi gi waaye naa la a xare waaye vraiment tarre bi ambay ah, nañ na ma ambay ah, nañ nañ nañu sàcc ci maaraacaam rek def lu ñu saf mais kenn mos a gis nañ def lu ñu saf dañuy dañuy ndëwënal <laughs> lii kenn mosu ko gis xam nga pap ngeen <laughs> ngooy defee ba indi mm. euh, ki mu fi indi sax xamoo leen ko xëy na wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan peut-être xamoo leen ko mm-hmm. parce que kii Euh, maanaam. tele bi dama ni mooy jinne télé yi. Pape Mendy mii toog dafa ah, daanu. tubaarkàlla daa daanu ci li ngeen def. Pape ndeysaan. Pape wallaahi azim télé yi dañ may invité. dama sax si dem wallaay dëgg la. mais ngooñ mais télé bi dama ni mooy jinne télé. dëgg la waaye parce que damay lëlu rek parce que. Euh, fu ne nga génn fa télé ndeysaan nga jéem a def lu yeew nit ñi moo ko solo mm-hmm, mm-hmm. waa di di nuyu di ki wax tamit sama jigéen bi nekk ci ginnaaw mooy Yacine Guèye Massar penda penda penda Yacine Guèye Massar taalibe borom daaru bi Kene Guèye Massar Mbacke Guèye Massar Pape Malick Pape Maguette nga fa Doudou Guèye Massar Ousseynou nga mooy sama saint lusene bu ñaawul ndeysaan bi tamit xam nga defoon na tamit moo ko kii wallaay ndeysaan yow euh, kii nag doxalal dama bëgg nga doxal sax ma aw la parce que man de jàng naa aw jàng. waay waay ayca waay waay ayca waay. est-ce que duñu teg son bi rek. aca nañ teg son bi kon aca. waaw defal son bi aca kon na ñëw ba. kon na son bi ñëw. ma taxaw ne ci kanam maa ngi ñëwaat. waaw kay waaw jeex na. <laughs> ndeysaan.